leenu sant soxna jaara ngir moonu may li tax nu sampi daara xeraw lu leenu sant soxna jaara ngir moonu may li tax nu sampi daara bu ma tàngam lu bu ma tàngal bu leen naxal ndoxum ki di tàngal nu sant soxna jaara ngir moonu may tax nu sampi daara bu ma tàngam loo bu ma tàngal bu leen naxal ndoxum ki di tàngal jalantu leen te ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp te génne seen bagaani xol te taaten maam jaara waamele ku naan yaabon taw na bawal taw na kajoor ak njaambur bawal ngaan ku mar ëllëg dob jaambur waaloo ngi wal wali di gental waaloo ngir naan ci géejug doomi asta waaloo njaara maam jaara ku am jaara moom Njaga Seck laa tudd am Seck waaw Basiir. Njaga koddaay yi kañ ngeen ko tàmbalee. buñ ñëwee li nga xam ne moom mooy suñ digal daañ ko jël def ko ci benn magasin magasin bi nag buñ ko defee ba pare ñun xamatuñ fuñ koy jëmee ñun suñ digal daal mooy dajale ko def ko ci magasin tëj ko joxe caabi yi loolu mooy suñ digal ñun. moom bagage yi yoon lépp lañ fi indi loo jàpp ne bagage boo amu fi sax am na fi. même am na ñoo xam ne xeetu ganaar sax dañ ko fi indi am na yoo xam ne lépp lu ñuy liggéeyee rek buñ ca bu ñuy ñëw dañ ciy indaale léegi rek am na jaaykatu caaf yoo xam ne ni ay takk caaf la indi de xam ne soxna jaara moom lépp loo ko jox loo ko jox rek loo yëngutu sa yëngutu rek boo ko joxee mu defal la ci lu kawe sa njor loolu nag la ci nit ñi taamu même ja yarkati ganaar yi dañ fi indi ay ganaar yoo xam ne yëpp tim ci sàkku ci ak barkeel rek moo tax lépp ñu koy def. bëri na ñoo xam ne dañuy Euh, di topp dal yi yi nga xam ne di leen laaj naan euh, ci koddaa mi la kii la yëngu waaye fekk na yënguñ fi koddaa mi ñi nga xam ne nii nga séenee muy oto bi nga seen borom siile yi nekk ci noonu la nga xam ne mooy ñoo yore liggéey bi amul leneen luñ ci rax lu loolu waa ahlul tarbiya mooy daayira sëriñ Muntaxa bi nga xam ne da ko sosoon mooy dongay euh, yi nga xam ne ñoo jaaroon ci moom ba murit ba mu yewi leen ñoo wàññi ko waat nekkaat fii dajalowaat defaat beneen takkuwaat ci beneen daayira daayira boobu sëñ bi euh, tënk ko ci daayiratu tarbiya wa tarqib li xidmati seexu xadim yow sa doom yaaram yaa tax jigéen ñëpp seeni doom seex budul ko nag yow noo ngi dama bay soox tekkale la jigéen ñi bu sabali xaw naa araam mel na la yàlla gi takkalaat jigéen ñëw ci màggal gi di CAS rek di soññ nag sama mbokki jigéen yi ñi nga xam ne ñoo ñoo war a góorgóorlu surtout ñun jigéen ñi nag ndax maam Diarra daf ñoo liggéeyal loo xam ne ñun faat féetuwuñ ba mu liggéey waaye añ nañ ci ndax suuxatuñ walatuñ bojjatuñ waaye nag war nañ góor góorgóorlu ñun jigéen ñi suñ borom kër yi di ak di góorgóorlu ci yoonu sëñ Touba wi ndax fekke wuñ maam jaara waaye bàyyil nañu fi luñ mën a liggéeyee muy sëriñ Touba ndax ñàkk a gis maam jaara te nga ne mënumaa liggéeyal sëriñ Touba ankay sëriñ Touba ngi fi ak njabootam fi képp ko bëgg a liggéeyal mën nga koo liggéeyal may soññ na sama mbokki jigéen ñi rek di leen gën di soññ ñu gën di góorgóorlu di gën di muñ di gën di laxasaayu di gën liggéey ndax bis bi maam jaara am moom rek moo ko am ci jigéen bu doon wër at monde bi sax laay wax boo ko doon wër tey maam jaar rek moo am lii kon nag jaaraama maam jaara jërëjëf sëñ Touba ñu ngi ah bis bi xanaa di ñaan rek ñu màggal ci jàmm ak salaam accident yeeg yëpp yal nañu suñ borom musal képp ku ñëw di siyaare seet loo fi ñaan yal na la ko suñ borom may ci barke Serigne Touba yàlla defal ñu màggalu jàmm daal. wax dëgg Seynabou Aw laa tudd yaayu maam jaara dakaar fi ñu naan Ngor. Ngor laa jóge Ngor waaw. waaw damaa ñëw si màggal gi. ah. lan ah, ngay wax ci sant sant yàlla rek ndax soxna jaaro moom jigéen ju nekk bëgg nga mel ni moom muy suñu royuwaay mu def na loo xamante ne jënn jigéen ma sukaa def kon jigéen ju nekk rek tey am nga ndam jigéen ju nekk yaa ngi tiitaroo soxna Jaara yaa dañ suñu borom gën a xiir si boppam ñu mel ni soxna Jaara. yaakaar sa dooma am wilaaya jaara ma am jaara. ku am tey junne yaakaar sa dooma jommal jinne jaara mam jaara saarful jiili jox naa la jukkay rabit yeewu jum jubal tey jàpp yow tey julli tey jàng tey joxe baleer jolli te jikko yi mooy bëgg lim amoo bon ñu ko amoon yaroo leen. Aïssatou Cissé waaw kër sëñ Abdou Akim Touba Njaanjaay waaw waaw damaa màggal si chaque année damay ñëw di nekk fii di bale waaw waaye kër sëñ Abdou Akim la ñuy dal waaw foofu la ñuy dal waaw waaw wax dëgg yàlla sëñ Abdou Akim moom lu ne la fa def ak sëñ Bas Njaanjaay séeréer sépp a ci moom ndax baax nañu oyof nañu wax dëgg yàlla baax nañu oyof nañu dugal nañu séeréer sépp taalibe murit vraiment baax nañ ñoom ñëpp waaw ñoo ngi sant di gërëm. Adama Diaw laa tudd Touba Madiana 3 waaw. dañoo ñëwoon tey ziare soxna su baax si soxna maam jaareet laay suñu maam ji di ñaan jigéen ju nekk kenn ku nekk roy ci moom wax dëgg yàlla. macha allah. ngi ziare bokki jullit yëpp di ziare bokki taalib yëpp te di leen ndokkeel ci bés bu tedd bii nga xam ne moom la ñu daje tey di ci fàttaliku jàmbari lislaam ngi muy sayyidatuna Mariama Bousso ñu gën koo xam ci maam Jaara sëriñ Saliou bis bi moom ni ñu ko dundee mooy mbégte rek lañu ci am bu baax a baax ci ni nga xamante ne bii ñu la bokki taalib yi yëgee taxawaay bi ñu war a am ci bésu bu soxna jaare ji war ci jàngate tam mboolem jigéen ñi ñu xam jëmm ji nga xam ne moo tëdd fii li ko indi woon fii ak liggéey bu rëy bi nga xam ne moom la liggéeyal suñu borom ba tax bokki taal bi yëpp bàyyi seen yitte bàyyi seen soxla ñëw daje si fii ngir moom loolu jigéen gu nekk war na cee jàngate muy soxna soo xamante ne bii diggam ak boromam kenn nattable wu ko liggéey bi mu liggéeyal ci lislaam ñëpp leer na ñëpp waaye ràññu ko na bu baax a baax ci diggam ak kilifaam gu tedd googu mu nekkaloon muy Mamor Anta Sali nga xam ne moo ko andi woon fii ba tax suñu borom moomee ko fi ñu denc ko fi. ñi ngi sant bokki julli yëpp sant bokki taalibi ci seen mobilisation bu bi nga xam ne bi def nañu ko gannaaw bu ñu ñaanalee Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne tey moo nekk ci bopp njabootu Cheikhul Khadim di ñaan suñu borom bàyyi ko fi may ko fanu gudd loolu ànd ko wér ba yéene ji nga xam ne moom la ci am ci lislaam am ko ci yoon bi mu mottale ko na mu ko bëggee waaye daal ñi ngi am mbégte bu baax a baax di rafetlu tam taxawaayu taalibe yi ci seen mobilisation ci seen pësteef te xam ne nekkal yàlla rek moo wóor ndax lii soxna si am tey ku ne xam ne ne ku nekkulul yàlla mënu koo am loolu mooy yëg-yëg bi nga xam ne daal am nañ ko ci ci bés bi tey jii. mbokk yi jërë jëf ci déglu bi ngeen nu doon déglu ak di nu seetaan fii ci Porokhane ñu nekkoon ci barabu soxna su tedd si nga xam ne fi doon amal siyaar yi nga xam ne ak interview yi nga xam ne mbokki taalibe yi bàyyee ko noon ci gox si fasanti ko doon siyaare si soxna su màgg su sell si ak ñëw ci dëkk bi ñu àndoon ak yéen fii nag lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëleel ci barab bi nga xam ne moo di barabu soxna su tell su yiw ji ci kanam tuuti incha allah rabi dana ànd ak yéen lépp lu xewaat ñu wan leen ko ci seen site bi